démb dañu waroon def marche national ñu ngi sax remercier suñu collègues yu jógoon ci région yi ndeysaan ñëw nañ ba fii mais malheureusement autorisé ñu marche bi dañu mujjee ñibbi donc marche bi lu ko waraloon mooy ñun ñëpp seetaan nañu keroog dimanche ba lay passé ministre bi ñëw assemblée ay indemnités yoo xam ne dañ ko jagle woon contractuel des établissements publics de santé yi président moo leen ko jagleloon ministre bi ñëw fa wax wax joo xam ne daal kenn mënu ko comprendre ci njiit ndax mënoo yor njaboot ngay tas sa njaboot te moom loola def ndax indam de bu ñu la ko joxee yow sa bopp nga ne jot nga xaalis bi yow yaa saytu nit ñi nga xam nii la ñu toll nga def simulation mooy nga calculer xaalis bi nga ne nii lay toll muy huit milliards yi nga wax ko ministre du finance du budget mu jox la xaalis bi li ñu doon xaar ci yow en tant que njiit nga tëddee njaaxaanaay nga sëddale xaalis bi ñëpp a jot ci mais malheureusement du loolu la def nee na nee na dañ koo lonkal dañ ko lonkal benn lonkal boo xam ni su ñëwee nii nga koy defee mais ku ko defal lool ku ko defal loolu mooy ci ministère am la nekk moom moo xëy fajar rek ñu war a fay xaalis bi bu bind mail mu ne déedéet joxal ñi bàyyi ñi moom en tant que kilifa loolu autorité la te c'est des instructions du président de la république moom bu mu ñëwee dafa jël ab benn décret boo xam ne fonctionnaire yi la 14 30 boobu dafa jël personnel bi def ko 18 corps mu jël ko ay yenn corps yi bëgguma tuutatoon tour parce que bon parce que suñu collègue lañ mais ñeent lañ corps yooyu la jox leen ñeneen yëpp mu bàyyi leen te ñooñu ñu mu bàyyi mooy tout ce qui ci soins yi wàllu soins yi wàllu paj mi xam nga ñun hôpital dafa yaatu wàllu paj bi par exemple jëlul aide infirmier yi jëlul euh, kii brancardier yi jëlul euh, garçon yi fils de salle jëlul ambulancier yi xam nga léegi mu dem ci administration kenn kenn jotul administration yëpp soo déggee administration hôpital su fonctionne administration bi ci la bokk huit milliards cent quarante millions trois cent vingt loolu deux mille vingt deux la de deux mille vingt deux la woon nañ ko jox moom mu diviser ko ni hôpital tamit am na ñoo xam ne ateliers yi la ñu nekk leen fa toujours mais ñooñ ñëpp jotuñ kon soo xoolee ñu jot motuñ sax un dixième léegi nag moom bu mu jotee ñooñu ba pare xaalis bi dafa des nee na xaalis bi des na delloo na ko te kenn sant ko mu séddale ko noonu amul kenn en amul benn benn fuñ ko signé président mus ci wax keneen waxul lool ay nitam ñoo ko sant lool. suñu taxawaay mooy taxawaay bu ñuy taxaw ndax bu njëkk lii dañ ko doon ndëpp ndëppal mais fexe nañu ba sensibiliser tey adduna bi ku ko yëgul ci yow la ndax lu ñëw ba assemblée national ay député posé la ay questions génne ay documents de preuves à l'appui wan la ko kon ñëpp yëg nañ ko léegi sensibiliser nañu fii nag réew la. état la dafa am muy fonctionner ñun duñ def forcing parce que booy xeex injustice doo force dañ ànd ak suñu xel ànd ak dal teg ko ci yoon. yoon bi mooy sensibiliser nañ moom nee na delloon ministre des finances mu ngi woon foofu ñun dañuy ñaan président muy jox mais nañu jox suñu indemnité comme ñëpp comme ni ñu defee fonctionnaire jàmm nañ ñooy sinon day yàq liggéey bi. ci biir hôpital léegi da ngay gis nit ñi taxaw ngeen bokk liggéey kii am na indemnité kii amul te yéenay def même bi xam nga loolu di yoon bi ñu ngi koy dérouler. je pense que def demoon nañu marché démb malheureusement dañ ko antuwul léegi def nañu ay brassaaru semaine ba lay passé parce que nag loogi gis xeex da ngay yéeg par palier di déglu gars yi nga xool ndax problème bi dina réglé léegi ñu ngi ñaan premier ministre ñu recevoir ñu mu réglé problème bi wala président de la république parce que ay année électorale lañu jëm te kenn ñaanul yàlla ñu yegg ba foofu système santé bi paralysé parce que 7000 agents nag bu ñu xëyee rek téye te loogu musiba lay doon loo xam ni ñu ngi koy xeex ñëpp yëg nañ ko te l'argent a été décaissé génne nañu xaalis bi ñu war ñu ko jox benn ministère toog fële ak ak ak ak njabootam nee ni ngay defe joxal ñuy bàyyi ñële le reste nga delloo ko yan nii lan lay nuroon doo comprendre